salaamaaleykum mbokk internet Univers Info TV ñu ngi leen di waat bu baax uh, di leen dalal jàmm tey nag ñu ngi uh, le 23 janvier 2022 une date qui coïncide avec uh, les élections locales yi nga xamante ni day am Sénégal ci atum 2022 si suba ba tey nag nit ñi ñu ngi ñëw ñu ngi voté te ñun nag dañu choisir lieu de vote bi nga xamante ni wala bureau de vote bi nga xamante ni fii la candidat benn ci candidat wu Dakar yi di voté muy Barthélémy Diaz fii ci Baobab école Massayer Mass Massayer ñaan 1 fii ci Baobab moom nag ñëw na voté si fii nga xamante ni moom mooy ci lieu de vote bi bi mu ñëwee nag gis ngeen rang bi nga xamante ni moom la fi fekk mu respecté rang bi taxaw xaar rang lu mat 30 euh, minutes soog di dugg daal di waaye bi mu génnee euh, saafantewul ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, wax échangé ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy journalistes yi dafa voté rek dem waaye ba tey ñun nag ñu ngi fii pour wan leen li nga xamante ni moom mooy ambiance bi ak li fi xew waaye li gën a am importance rek mooy dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy ñu war a voté dem fas yéene waxtaan ak ñoom ci ñi nga xamante ni euh, noonu la ñu voté ci conditions yi ak euh, ban candidat la ñu choisir pour la ville de Dakar ak fi nga xamante ni moom mooy commune euh, Sacré-Cœur Mermoz dañuy dem rek amaat ànd ak yow daal di jël réaction yi nga xamante ni ñoom ñooy votant yi fi ñëwoon tey merci beaucoup. de vote école Mass Massaer Niane 1 fi nga xamante ni moom mooy Baobab ñu fekk fi suñu benn yaay moom voté na ba pare d'abord dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen présenté wu ñu soog di ko laaj suñu ay questions yaay booy ñu ngi leen maa ngi leen di fay di sant yàlla juddoo Baobab yaroo Baobab màggee Baobab macha allah tamit Baobab moom commune bu xam ne la ñun ñoo bokk ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay parce que lii day jàll ñun ñëpp ay dëkkandoo lañu ku gañe yal na la yàlla may ndam bi ndam yàlla na sedd guy ni galaas ci yow benn violence ñun Baobab xamuñu xeex ñun xam nga lu ñu xam kafooree du liggéey ji dugg suñu biir kër parce que ci éducation boobu la ñuy yaroo kon nag c'est le meilleur ku gañe maa ngi koy ñaanal yàlla chaise bi yàlla na doon ndoxum sedd guy mel ni parce que loolu laa am li may wax ci vote bi parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay waaw. solo waaye condition de vote yi fii tey naka la demee woon ndax eh, amoon ngeen ay problème pour mën a voter normalement wala comment ça s'est passé exactement. non franchement nag man bu ma ñëwee fekkuma fi dara dudul jàmm ak salaam laa fi gis maa ngi nii tamit di retourner sama kër fekkuma fi benn vélo parce que ñoo xamuñu loolu boobu xamul loolu xamul xëy xamul ñun ñoo ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk ba bokk baay ñun xamuñu loolu parce que kenn éduqué wuñu loolu wax dëgg yàlla macha allah daal baobab moom macha allah commencé nañ ko ci bisimilah yàlla nañ ko yeggalee ci alhamdulilah rabbi alamina loolu lay ñaan yàlla. ñu gis ni tamit euh, ki nga xamante ni bokk na ci candidat wu ville de Dakar yi muy Barthélémy Dias bi yewoo ci gox bi moom fii la voté tey aussi loolu aussi ban euh, euh, sentiment nga ci am. macha allah Bart dama koy ñaanal yal na ko yàlla may ndam bi parce que bañkat la. xale la juddoo baobab yaroo baobab màggee baobab te lu mu am nag indi na ko ci commune am kon nag dañ koy ñaanal yàlla ville de Dakar bii muy wut yal nag ko yàlla may te bu ko maye yàlla na doon ndox bu sedd guy mel ni glace ci moom loolu laa koy ñaanal yàlla. est-ce que jàpp nga ni dina yomb ci moom pour mu gañ. ah bien sûr lu tax ba du yomb c'est le meilleur gañ yàlla yàlla rek moo xam kuy gañe man bii tax a xaw ma kuy gañe bu yàlla tuddee ni bàtt mooy gañe day bañe bu tuddee ni keneen day gañe keneen tamit ku fay toog maa ngi koy ñaana yàlla yàlla na doon dox bu sedd ci boom waaw. programmation résultat yi fii lañ koy euh, toogee xaar ko wala dañu di dem ci siège am wala. non fii la ñuy toogee xaar ko comme d'habitude rek chaque année dañ doon toog di ko xaar fii te dañ ko fi xaar incha allah. ak moom candidat bi wala. ak candidat bi ak ñëpp bu ci xalamee di ngeen ko fi gis macha allah. waaw Selim Mayel Gagne yan na ko yàlla may maire de ville bi muy wut yan na ko yàlla may man loolu laa koy ñaanal yàlla parce que doom la frère la rakk la Selim Mayel Gagne franchement ku gañe parce que ndam bi ndamul ndamul fenn ndamu senegal la ñun nañu gëm loolu ñun sénégalais nañu gëm ni ndam bi yëpp ndamu Sénégal la ku toog dañ lay ñaanal yàlla yan na la yàlla may ndam loolu rek lañ lay ñaanal yàlla. merci beaucoup. ba tey ñu ngi fi nga xamante ni fii mooy euh, école Mass Massaër Niane 1 fi nga xamante ni euh, waa Baobab bi fii la ñuy voté ñu fekk fii aussi euh, suñu benn kilifa moom tamit ma ngi taxaw di xaar rang bi boobu ba tey voté gul yaa ngi fi depuis kañ sëñ ah maa ngi fi depuis ay 14 heures ah. ah. mën na koo dugg sa saal. waaw mënu ma dugg kay rang baa ngi nii bougé wul demul waaw. Ah. lan moo waral lool. ah bon xaw ma nag ah sérieusement xaw ma. ma daal maa ngi nii taxaw daal. est-ce nga chercher dem xooli lan moo tax rang bi demul ak yooyu noonu. bon maa ngi fii taxaw rek bon xaw ma nag ko sérieusement xaw ma ba daal gis naa ne daal moom rang bi moom presque bougé wul ko waaw. kon ci organisation bi daal mën nañ jàpp ni des na. non des na lu bëri sax waaye des na lu bëri. ñu gis ne it ki nga xamante ne moom mooy benn ci candidat wu ville de Dakar muy Barthélémy Dias fi mooy lieu de vote am mu ñëwoon voté si ñëw fekk rang mu taxaw ci rang bi xaar ba tuuram jot mu daal di dem voté ji loolu it yow ban ressentiment ban sentiment nga ci am. non bon ak de citoyen rek laa gis ah bon xam rek dafa def war waree fam quoi moom dafa bëgg a jël li nga xamante ne moom mooy ville de Dakar ànd kook ay naataangoom yi nga xamante ni ñoom it dañu bëgg boobee place yow selon yow kan mooy potentiel candidat wu euh, ville de Dakar. kan selon man kan mooy potentiel. bon affaire yi nag daa moom dafa xaw a jaxasoo moom. waaw <laughs> affaire yi moom xaw na doy waar quoi waaw. mais boo si jàngatee boo si jàngatee selon yow par rapport ak sa jugement bopp. ah bon man moom fii moom sama quartier moom sama yaakaar moom xam naa ne moom moo ci am ëpp ëpp chance quoi. waaw sama yaakaar waaw. moom Barthélémy waaw moom Barthélémy Dias waaw. yeneen kàtt yi jàpp nga ne du yomb ci moom. waaw du yomb moom dina métti trop waaw. résultat yi dangay ngay toog xaar ko ginnaaw boo voté ba pare wala da ngay voté rek dem. non man damay voté rek dem waaw. sa carte sa carte kan nga ko fa yéenee sànni. <laughs> ah grave. nga ko rek. <laughs> donc yeewoo ci koñ bi aussi. Ah. waaw département waaw mooy moom waaw. waaw jàpp nga ni moom daal liggéey na ci koñ bi lu tax ñu war koo mën a plébiscité jox ko li nga xamante ni moom mooy. sinon liggéey na nag moom sérieusement waaw man bok du ma gis ko waaw gis naa ne liggéey na moom waaw. ñu tur bi sëñ bi Ah, Lamine Lamine Cissé. Lamine Cissé waaw ah. jërëjëf Lamine merci beaucoup. ci suppléant yi fii nga xamante ne moom mooy bureau de vote numéro 3 rang bi nag fii moom gaawul loolu parce que am na si ñoo xamante ni nee nañ depuis 11h ñu ngi fi mënuñu fexe ba dugg d' abord euh, dañ koy nuyu bàyyi ko mu présenté wu ñu soog ko laaj li nga xamante ni loolu moo waral loolu sëñ bi. maa leen di fay. Euh, fii dañ ne bureau de vote bi euh, pour nga dugg voter day doon problème parce que am nañu fi nekk depuis 11h mënuñu dugg lan moo waral loolu. ah waaw loolu dëgg la mais dafa bay ay troisième âge yu fi indi. looloo waaye ñu mu yéex xat troisième ay suñu duggee ñoom dañuy jël seen temps de trop looloo tax nag waaw. mais amul ay dispositifs jël pour gaaw jàppale troisième âge pour nga xamante ne ñoom seen vote dina gaaw ak yow. si am na nit yu di jóg di leen jàppale sax pour jëlee leen feuille yi xamee suñu duggee ñoom si une bi ñoom nag foofu ñuy jëlee temps ko quoi. Euh, est-ce que du euh, mënuñu woon a xool beneen bureau doo xam ne foofu ay troisième âge rek dañ fay jël bàyyi yeneen bureau yi ñi nga xamante ni aussi tamit euh, seen vote gaaw nañu boole leen si parce que tamit temps bi mënoo toog fii tout une journée di xaar rek rien que pour voter te bàyyi seen ah dëgg la waaw loolu moom moo gën moom xañ ñu utaleen benn bureau boo xam ne spécial pour troisième âge xale yi gën a yombal job bi quoi waaw. soxna si nii nga xam ne moo nekk deuxième avant rang bi nee na depuis 11h ma ngi fi waaye loolu tamit xam na nekk tamit dëgg tamit xam na fii nii xamoo dañuy dugal trois jeunes ak benn troisième âge dina troisième âge bu dugg sànq ba tey sax instant ba léegi génnagul loolu looloo waral ñoom ñuy kaas. mais à part amul beneen problème bu am fii si sax. non non non non franchement moom amul beneen problème bu fa am. Barthélémy ban bureau la voté parce que nee nañ fii la voté. waaw bureau 1 la voté. waaw moom est-ce que jàpp nga ni euh, li nga xamante ni moom lay wuti muy ndamu euh, ville de bi est jàpp nga ni moom. ah maman nga koy ñaanal daal. Ah, kon moom nga voté. ah non man daal maman nga koy ñaanal daal non man daal maa nga koy ñaanal ville de Dakar bi moom waaw. ci kanam ñu ñëw fii nga xamante ni fii la ñuy proclamer résultat yi pour jël ambiance. waaw waaw incha allah kon léegi léegi. mais mère ko ja Barthélemy Dias rek li ma jaxal dara jaxawul ma ko ñeneen nag ñoom ay mees lañu pour ñun. Ah, waaw mais mais yuuxu mën na jëf fuñ ko foogee. waaw amul problème mais ñun dañuy yuuxu parce que ñun ñun moom la ñu xam ak lu munti am oh, dañuy dee pour Barthélemy Dias. résultat yi fan lañ koy xaaree tey ak kandidaa bi. man fii fii suñu gox bi Barthélemy Dias. d'accord moom fan lay xaaree kii proclamation résultat yi fan lañ koy xaaree pour mën a préparer fête victoire bi. non loolu secret la toogal toogal seetaan tooga ak ñu ngi toog fii di leen di xaar am na yenn yi moom toogal ak xaar waaye ñun man sama bopp laay waxal dur Barthélémy Dias yàlla nag moo xam yàlla moo xam waaye ñi ngi ñaan maman Marie bi ñu dëkk suñu loxo mu may ñu nam maman Marie ah ak Jésus Christ ah, ñu ngi koy dëkk suñu loxo nañu may ndam lenaan nag moom. yàlla moo xam mais fu mu toll nii maman Maguette defe naa ne yenn yi duñu ko bàyyi bàyyi nañu yëpp si loxo jeex na. xamee naa la ci xamee naa la ci ñiy ànd ak. mais 100 pour 100 100 pour 100. baaxte rek nag. pourquoi vous avez choisi euh, le candidat de de de, pour la ville de Dakar. j'ai pas choisi j'ai voté mais je sais pas encore pour qui en tout cas je vous dire pour qui j'ai voté mais ce dont je suis sûre c'est que Barth quand même a fait de belles réalisations dans la commune d'arrondissement il a fait de très bonnes réalisations comme elle l'a si bien dit on a construit des églises on a réfectionné des mosquées les jeunes ont reçu des bourses d'études. En tout cas, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et il mérite d'être reconduit. Parce que euh, les maires que nous avons vus, ils ont des programmes, c'est vrai. Mais en plus d'avoir des programmes, il faut les exécuter. Et lui, il est en train d'exécuter les programmes. Et c'est ce qui est important. Il ne suffit pas de parler. De la avec, euh, avec, avec euh, le candidat de euh, la coalition Benno Bokoyakar euh, qui a fait d'énormes progrès euh, à la mairie de, de, de Yoff. À la mairie de Yoff, oui. En fait, tous les maires se valent pour moi. Mais ce que moi j'ai vu, C'est ça que je peux témoigner. Je sais de ça que je peux témoigner. Mon témoignage porte sur ce que moi j'ai vu et je témoigne de ce que Barthes a fait parce que moi je suis chrétienne et je vois que dans les églises, il a beaucoup fait. Je suis pas jeune, mais j'ai vu beaucoup de jeunes qu'il a financés en termes de bourse. Et ça, c'est louable. Et je sais que si, quand, quand il sera reconduit, il fera plus que ce qu'il a fait. Il ira de l'avant. Mais Dakar n'est pas Baobab aussi. Donc euh, Dakar n'est pas Baobab. Euh, vous conviendrez avec moi que ça reste encore beaucoup de localités d'où euh, Barthélemy doit montrer vraiment euh, sa force pour euh, la mairie de, de, de, de, Dakar, la, ville de Dakar. Oui. Donc est-ce que tu penses qu'il sera en mesure de gagner euh, beaucoup de localités ici à Dakar Mais s'il confirme, s'il confirme ici, au niveau de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est sûr qu'il va confirmer ailleurs. C'est évident. c'est évident li ñuy wax ci olof rek cin su su su neex su baxee hmm? su neexee su baxee xeeñ kon si si lui il a commencé par faire de belles réalisations ici au niveau de sa commune d'arrondissement je suis sûre et certaine que quand on va lui confier la ville de Dakar il fera des exploits c'est évident. kon lañ nar a daje tey tey ci ngoon pour euh, xaar programmation résultat yi ak seen candidat. ah ñun daal ñu ngi rek ñun moom xam nañ ñun ñëpp ñun ñu lekk baobab fii xam nañ. suñu gañee fu ñuy tase xam nga Baobab moom y a la cohésion les gens sont très solidaires et on on a on est dans une même mouvance donc quand on gagnera on sera vous allez entendre Baobab exploser par la grâce de Dieu on est avec Bak avec avec Barth Askan bi te incha allah askan bi dinañ ko yeewi su soobee borom bi